li rabbin ghafurin qaahir pàccu waxtaan bi sëriñ bi jot na ko jot na koo junj muy ci ci sëriñ bu mag bi ci sëriñ Touba xam nañ ni loolu sax moom waxtaanu giirug dund lay doon waaye dañ doon sàkku ci sëriñ bi rek mu mu mu baaxee ñu tuuti ci ci sëriñ Touba donte lott nañ lool ci xam kan mooy sëriñ Touba waaye ñu mu baaxee ñu as tuut ci sëriñ Touba ci yoonu géej gi baaxee ñu itam ci xasida yi naka la la la la murit yi mën a mën a mën jëriñoo ci xasida yi rawatina ndaw ñi euh, ak taxawaay bi nga xamante ni ni murit yi war nañ koo am tey maanaam taxawaayu taalibe waaw bisimilah. jërëjëf euh, Serigne Touba moom mënee su ko waxtaane ba mu daj sëkk. ndax moom mbiram moom mooy ndax wàllu googu gi nga xam ne dugg nga ci rek ndax moom dafa jóg rek di làmb yonent bi ndax dafa wax ne ba yaxtahu bi fuwaadi xiina lam taraawu dane bi ma jógee rek man li ma njëkk a def man xaadimu rasul mooy jaayante ak kii nga xam ne mooy Seydina Muhammad def jaayante googu nee na muy farate ci man nii nga xam ne la julli eh, juróom yi doonee farate ci man xëy na lam mu ne bi nga xam ne sax sama bët bi tegiwul ci jëmmi rasulilaay waaye sëriñ bi nee na amatuma menn xëy amatuma menn ngont lu dul di di jëf ci yonent bi di ci gont di ci xëy lu ma waay di woo ci wàllu àddina nee na du ma la dégg duma la gis lu dul yonent bi rek ak xetam laay xencu nee na bëgg googu mu bëgg yonent bi nag ci boobu jamono yóbbe na ko sax ba mu dem ci nit ñi jàpp ne dafa nitoo diku ab dof lañ koy jàppe ndax nee na boobu dara waralu ko rek ndax lu dul bëgg yonent bi loolu yi nag ci la nekk moom sëriñ bi ci diir boobu yëpp ba yàlla sunu boroom a ah, def bi ko yonent bi feeñoo ndax kon jëgee dégg mu ne jaayante na ma moom ci jaayante goo xam ne def ko muy farata waaye nag nee boobu sama bët tege tegagul ci sëñ nee na bi nga xamee ne nag sama bët tege na ci yonent bi muy nii nga xam ne la ko murit yépp déggee muy xalwaam boobu nga xam ne defoon na ixtikaaf googu ci daaru xudduus ca weeru koor wa nee na ba nga xamee ne yonent bi fa la ko feeñu ba ko yonent bi laajee ne ko ana lan nga bëgg sëriñ bi daf ko tontu ne ko la ma bëgg mooy bokk ci sa ñoñ ñii nga xam ne la la la la badar di ànd yow laa bëgg nekk noonu nii ak yow muy guddi muy bëccëg bokk ci di ànd ak yow ci lépp yonent bi ne ko loolu moom faat na ndax ñii danoo jaayoon seeni deret ànd ak man nu rey leen ci ay xare te lislaam xare jeex na ci ndax lii nu tuddee sax euh, jihaat yonent bi ba mu jógee ci loolu waxoon na saxaabi ni leen léegi nag génn nañu ci jihaat ji nga xam ne mooy ju ndaw ji jëm ci jihaat ju mag ji ñu ne yonent bi waaw lii nga xam ne danoo jaay suñuy deret ñu rey ñu nu dee ci ci yoonu yàlla a ah, jeexaat jooju naka la mën a amee maanaa boo xam ne kat ñun kat jihaad ji ñu jëm nag léegi loola dee nañ ci sunuy alal des nañ ci gàddaay nañ ci lépp def nañ ko kon jeexaat gën jëm moom maanaa boobu jihaad jooju moom jihaatu lu muy doon yonent bi ne leen jihaad jooju mooy jihaatu nafsi mooy xeex sa bakkan mooy li gën a rëy ndax jihaad jee képp koo xam ne àndoon nga ak man nu rey la boo ca dee àjjana nga jëm képp koo xam ne àndoon nga ak mayit ci jihaad yooyu moo xam Uhud la moo xam eh, Badar la gi gën a siiw mu ne bu boobaa it bu des la koy fay des la koy fay doo dem sawara léegi nag jihaatu bakkan biin li tax muy gën a rëy mooy kuy xoole ba sa bakkan yóbbu la sawara yaa xam kuy xoole ba sa bakkan yóbbu la àjjana it waaw góor sëñ Tuubaa nag daal di ñëw nag ne yonent bi damaa bëgg ñoo ñii nga xam ne danoo jaayoon seeni deret ànd ak yow mu laaziman kël ahlil badrin ma fas yéene nag man sama bopp nag ànd ak yow ànd goo xam ne ni waa badar ñooñu àndee woon noonu laa bëgg a àndeek yow yonent bi ne ko loolu day metti te dama laa yërëm te yow da ngaa toll ci dugg sa ñeen fukki at te tuut moo ko manqué rek nga dugg ñeen fukki at te maqaamam nga jiite jamono mi ngi fi nga doon xutbu boo xam ne ah yow yaay jiite jamono dogal boo xam ne am na ci sa boroom sa digg ak jaam ñi yaay doon xawsu bi nga xam ne yaay wallu sa waa jamono waaye yërëm naa la ci loolu ndax loolu fa mu aje dafa dafa dafa dafa gann ah sëriñ bi it wax yonent bi ne ko loolu la bëgg yonent bi ne ko nag loolu danañ jël nag ñooni nooni jamono bi ñi gën a tar ci jamono dëppale la ko nag waaye it bokk na ci dootoo tëdd cib blal nelaw guddi day jeex ci yow dootoo wokkatu ab xaalis doo ko laal lépp loo xam ne bànneex la it sa bakkan bii sax da ko dootul xencu nga xam ne kaalaam gii boo ko gisee saa su nekk sàng na sax ba sàng paxi bakkan ya dara luy neex ci àddina xamatu ko ci gépp wàll booba sëriñ Tuubaa daal di nag fas yéene nekk ci loolu diggante boor boobu yi nag la sëriñ bi daal di bàyyi lépp nag muy njaboot yi muy kër yi muy lépp génn ko wàcc fi njaboot daal di wéy dem ca la daal dem nag dëkkam boobu yi nga xam ne mooy Mbàkke Baari ca Jolof mu sanc ko nekk fa juróomi weer yam fa nekk di fa ñaan yàlla di fa liggéeyal yàlla ngir dara warulu ko booba nee na lu dul lii nga xam ne la ko yonent bi dikk te mu bëgg ko ci yonent bi mooy sësu gi mu sësu ak Seydina Muhammad la bëggoon booba it nee na yàlla sësale ko ci loolu ah sëriñ bi nekk ca loolee ci diir boobu yi nga xam ne nekk na ko fa ba bi nga xam ne toll na ci génn goo gi nga xam ne moom la ñuy màggal tey muy xaratu yow ma sabti saaminata xasar nga xam ne moom la màggal ci fukki fan ak juróom-ñett sax sëxri sabar min daaru lati bannaytuhaa fi ardi jorof bëx damaa ateyte ni mi ne barawar ci amiri ndar nee na foofu yi nga xam ne ci jorof foofu laa nekk sanc fa sama kër goo gi nekk foofu mu ne génn naa ci kër gi nag ngir war a dem lëggéeyal Seydina Muhammad mii di Moxtaar ci weeru safar wi ci fukki fan ak juróom nee na bi nga xam ne leetaru borom ndar bii nga xam ne booba mooy gouverneur bi fekk na ma fa nee na ci laa daal di gàddaayay foofa nag nii nga xam ne ngeen ko xamee ci ba mu jógee jaare jeewal ah ngeen gis jaar jaar boobu ngeen gis ba muy jaar foofu ak nam dajeeg maam Thierno Ibra faati ba bi nga xamee ne moom fas wi mu war dem na nee na eh, sax eh, eh, di raw fas yi tubaab yi sëñ bi di leen soññ ñoom tubaab bi naan leen yéen nan lañ leen seen kilifa mën a yónnee ngeen ngeen war maa jël escorte yóbbu ba bu mujj sama fas mooy daw di leen roppi sax ak a jiitu mu jaaree foofu ba nim jaaree jeewal ngeen gis la ca xew yëpp ndax nee na it commandant de cercle bi nga xam ne booba moom la ñu jëloon teg ko ci digg digal boobu nga xam ne moo nekkoon ci wetu njàmbur googu jàpp ci yéen jolof foofu booba nee na waa ku ay tal la te soxor lool sax commandant Leclerc boobu ñëw na di bëgg a dal di kii sëñ Touba ci boppam it amul benn armu boo xam ne boobu yor na ko nee na lu dul juróom fukki basmalaam yooyu mu daan wàññi ci baaraamam yi ak kaamil bi mu yor nga xam ne ak sunnas yi nga xam ne mooy sunnas Seydina Muhammad ndax nee na dig digal boobu la loolu rek la gànnaayoo nee na ba nga xamee ne def naa loola jàng basmala yooyu ma jàng nee na waa ji nekk ci yeneen yitte ba ni ngeen ko xamee ni mu wàccee Louga ba li ak waa Louga ba nu ñëwee am yéene sëriñ bi ne ko da ngay woote jihaat ñun ñëpp ñu jaay la sunuy bakkan ànd ak yow sëriñ bi ne leen loolu moom démb woon banaako muy jaar ki nga xam ne la Cheikh Omar Fouti jaaroon ci wàllu woowu moo waral mu tontu leen ne leen loolu moom moom bana woowu yoon lu dul nag léegi jihaat bii nga xam ne lay def nag bëggul bakkan des ci bëggul deret tuuru ci lu dul moom lu mu ñaanoon yàlla la di liggéey bu mag a mag a mag a mag a mag nag loolu yi ci la jaar noonu ba daal di tàbbi ndar ba mu demee ndar gis ngeen ne dig-digal boobu mu fa nekk nee na bokk na ci yi gën a metti gën a metti ci dundam nee na ndar googu bokk na ca ndax ba mu ñëwee ndar ah, eh, boo demee tey jii ñu wan la néeg ban ko njëkkoon a wàcce mu wàcc foofa ba ni mu ñëwaatee di dem ci fii ci Balakos ak dikk ci quartier Balakos boobu di di jaabante dig diggan boobu di wuy ji di dem ndax ndar ci boppam sëriñ bi def na fa ñeen fukki fan 40 jours la def foofa ci ndar dig digal boobu nekk ci tubaab bi nekk ci jafe-jafe yooyu waaye jafe-jafe yooyu yëpp wax na ne zalika tarbiya xayu laa yemutu nee na nag loolu tarbiya la boo xam ne yàlla sama borom mii nga xam ne mooy dund du dee neena na yàllaa ma doon tarbiyal boppam ci digg digal boobu mu nekk ndar nga xam ne xasida ak asiru googu fa la ko tàmbalee Ah, ba ni mu fa jógee ci ni ngeen ko xamee eh, ñëpp di ko dégg ndénkaan yeeg wala yi nga xam ne jaaroon na ci sëñ Modou njaay ma béy ndax ba mu fay bàccit booba ñu bari sax dañ naan xaside gi mat na waaye matul ndax ba mu demee ndakaaru la daal di mottaliwaat daal di tàmbaliwaat li rabbi tifaatillaahi la daal di jëlaat tàmbaliwaat foofu bëy di fa la mottaliwaat la ca des daal di wëy nag fekk na ni door na it asmaawul ahlul badar waaye ndarit ba mu fa nekkee bind na fa xam ne lu ko doole ruuxaleeg tubaab yi muy ilhaamul salaam nga xam ne moom la def jëmee ko ci nasaraan yi wax leen fa loo xam ne kenn xamut nu mu mel daal di wéyal loolu nag ba ni nga xam ne ñëw na foofu bato bi ko waroon a yóbbu it eh, boobu it bato bi amul départ ba bim ñëwee ci néeg boobu nga xam ne moom lañ ko wàccee ci camp camp Jal Diop muy un mètre carré boobu nga xam ne ca la nekkoon ci biir camp bi mu nekk foofu it ndax li may wax yëpp ab tënk la rek ba mu nekkee foofu it ci foofa nga xam ne fa la doon nekk gis ne ngeen ne am na ku ñuy wax Ibra Binte Gueye boo xam ne ñëw na foofa booba dëkk fii ci quartier Rëbës bii di ñaay cokkeer booba moo ñëw di ab sàndarma moom la sox soxna sa tuddoon soxna Aane Fay daan laabal di fóot yëre sëriñ bi ba mu ñëwee moom ci boppam moo ñaanoon eh, tubaab yi ne leen kii kat damaa bëgg ngeen dimbali ma may ma ba keroog bato bi di deppaar sëriñ bi ñëw nekk sama kër te jële ko ci camp bi tubaab yi signaloo ko ne ko su fekkee ne daw na dem yow la ñuy jàpp kooku ne leen jëmmu ju tedd ju baax ji kii ku ko xool xam ne du koy daw loola it eh, dig digal boobu sëriñ bi dem na këram waaye ba mu demee këramit moom ci boppamit amoon nañ ñeewanti ci sëñ Touba sax ba da doon wuti sax ay sëriñ yu ko ciy ñaanal ngir sëñ bi bañ a dem muy ñëw di ko suul di def ay yëf ba bis sëñ bi woo ko mu ñëw sëñ bi ne ko damaa bëgg nga rafet njort man damay dem te damay dellu siwaat ci jàmm yoonu géej gi maa ko ñaan yàlla sama borom ba yàlla may na ma ko nii nga gis nii tubaab bi du man ci man dara nii ma demee nii laay dellu see damay dem ci jàmm damay dellu si ci jàmm te na nga ànd ak rafet njort te bu ma ñibbisee dinaa indi ay ndam mu daal ne ko waaw daal di am sëñ bi ne ko lii ngay def yëpp maa ngi koy gis nag sëñ bi daal di yëkkati ay ndénkaan yu mu ko dénk daal di yëkkati ab dokk ab kaan ak ak yenn yenn yoo xam ne moom la ko sëriñ bi jox mu nekk ak moom. loolu yi ca sëñ bi nag daal di nekkee noonu ba ni nga xam ne départ am jot na bi départ bi di jotit booba dégg ngeen sëñ Moussa ka naan ma nga jaar ca waaxu Moussa Siri waaxu Moussa Siri mooy rue messagerie boobu ngeen di dégg booba foofu la jaare jëm ci dem ci poor bi. daal di war a embarqué foofu nag war a dem bi muy war a embarqué dem nag ci lañ ñëw wax sëñ bi ne ko am na beneen gouverneur nag boo xam ne sax mu wutu ku fi nekkoon te kooka ku baax la ah sëñ bi nag nee na moom ci boppam kooka nekk ci nopp yi nekk ci nopp yi nekk ci nopp yi ba yàgg sëriñ bi daal di jël daam ak xalimaam dal di tàmbali bëgg bind leetar ñaan appel nee na ci la am kàddu goo xam ne dafa bawoo ci kaw asamaan dal ci ay noppam mel ni melax guy xotti ne ko ah nan nga mën a jëlatee sa aajo di ko diis mbindeef ni yow bàyyi ma fi man yàlla Serigne Touba nee na loolu mu daal cay nekk ba yàlla sama borom ne ko loolu pour nga nga nga tuub ko jéggalu ko u faw yi du amire inna ilallaahi innallaaha basiru bil xibaad yi laay ji ngay jël ba mu jeex nga def ko xasiida sëriñ bi jël ko def ko xasiida ba mu yegg def ko kafaara tuubee ko digganteem ak boroomam daal di jëlaat aajoom jëlaat mbiram yëpp jëmee ko ci yàlla bato bi nag doo ko départ nag wuti jëm ci euh, yoonu Conakry wi nee bi nga xamee ne dem na ba bato bi génn na euh, dig bii nga xam ne séenatul ndakaaru séenatul fële muy bis li bis yi ñuy màggal ci ñaar fukki fan yi ak euh, benn ci ci ci ci géej gi yi ñuy màggal foofu ci ci géej gi muy 21 septembre boobu muy julli géej gi sëriñ bi nee na boobu séenatuma lu bokk ci dakaar waaye séenatu séenuma séenaguma yit Conakry sëriñ bi nee na séenul Conakry nee na foofu it fi la tubaab bi daal di dikk nag taxaw nag dikk ne ko ñun daal noo la fab di la yóbbu ay léegi li léegi nag nun yóbbootun la léegi li ñuy def nag mooy julli gi moom doo ko fi jullee waaw sëñ bi nag nee na foofu nag moom sax ci la njëkk amee aal daldi bëgg a jëm ci géej gi bëgg a julli waaye nee na ci lañ daal di dikkaat taxaw ne ko waxtu wi jotul waxtu wit wax ji bari na ci lool waaye waxtu tisbaar la tollool julli tisbaar la fa sëriñ bi julli ñii nag di wax sax léeg-léeg ma dégg ay nit di wax waxi géej géej sëñ bi julli na ci géej géej sëriñ bi julli na ci lii sëriñ bi julliwul ci lële yooyu yëpp sëñ tubaa dafa tolloog ne e, moom amalu ko woon solo sax ci dundam ndax yooyu tubaab bee dem ba nettali ko wala tubaab bee dem ba wax ko nit a ñëwaat ci sëñ tubaa leerli ko sëñ bi leeral ko loolu sëñ bi leeral ko ndokk bi ko tubaab yi njëkkee wax mu wax ko sëñ bi nag nee na fii fa la wàccee ci bato bi daal di dem ci géej gi ban ko laajee it ne ko ndax loola ba mu koy def lii mu ne damaa xam ne géej gi yàllaa ko bind te man mbindeefu yàlla képp laa te ci biir géej gi géej gaa ngi ci ay mbindeef yuy yi ay mbindeef a ngi ci biir géej gi di noyyi géej reyu leen waaye ña nga fa di nooy sëñ bi ni daal di teg tànkam julli foofu li mu fa dégg nañ bu baax seere yi nga xam ne moom lañ ko seereel ñoom tubaab yi bi sëñ bi yéegaatee ci ngor gi mu àndal sax ba dellu siwaat waaye dégg nañ it gëm yàlla gi nga xam ne moom la ko seereel ba waxtu yàlla wit ndax ñoom booba seeni pexe mooy kii jàpp nañ ne bu faatee julli rek ndax booba ñoom liñ daan def ñoom tubaab yëpp dañ daan ànd ak koo xam ne ci wàllu diine seen abbe yooyu koo xam ne waxtu wu nekk rek loolu la daan taxawee boobu it mu daal di wëy ba ni mu àggee Conakry ba ni mu jóge waatee Conakry ak ya fa xew ñam fa dénk ñam fa tuubal dénk leen baatub laa ilaha illallah bi nga xam ne moo sell te bawoo foofu ba ni mu fa jógee ni mu wàccee Grand-Bassam def fa escale am boobu nga xam ne escale la waaye escale boobu tey gis nañ ne la muy gàtt-gàtt mi ngi toj àddina ndax màggalu grand gi léegi daj na àddina te gis nañ loolu te escale fa sëriñ bi defoon ba ni mu jógee foofu bata ba di wéy di dem mu jaari mata di fële ca porub Zaïre bële ak ya xew foofu yëpp ci wàllu googu nga xam ne nee na bokk na ci way ak rafetaayu tedd yooyu yoo xam ne nee na way na ko bind na ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci pooru matati bi bi mu nekkee ci dig digal boobu nga xam ne fa lañ ko bàyyi di seet nan la ñuy def pour jàllale ko ak fi ñu ko jaarale ndax colonisation français bi jamono boobu fan ca toll ba moom ni mu jàllee nag ñu jàllale ko biir Gabon gi nga xam ne eh, nee na ba ma àggee fee ca galwaa laa àgg ndax lillaay xat wasaltu inda galwaa la wax ndax nee na ca galwaa nag man xaadimu rasul mi falaa àgg na sës rëkk ci yàlla nag ba sës ci rëkk te xaddis ba am ñëw na wax na ne yàlla sunu borom am na jaam ñoo xam ne dañuy jaar ci ay naafile ji jaar ci ay julli ji jaar ci ay sàbbaal ba dem ñooy bëtub yàlla ñooy loxob yàlla boo leen laalee laal yàlla boo leen gisee gis yàlla ndax ñoom danooy jaar ci ay jaamu yàlla ak tegtal yooyu nee na nag ca galwaa goo nag laa àgg nag man xaadimu rasul ba sës rëkk ca moom saqaaxa la seytaane ànda galwaayit fa la ko waxee nee na ca galwaayit fa laa rendee seytaane daqit nag moom iblis daal di koy rendi nee na foofu la ko reyee taradal iblis al marit kooku man maa ko wax ma ne sëriñ bi fala la toroxale iblis mu ànd ak na kuréeram ba nuy daw di yuuxu di muslu ca moom kooku ma nga ca saxaadu saxit bi ma woy sëriñ Touba foofii ci galwaa sëriñ bi ca foofa mu def étape ya ca Maayomba kon ne gis na la ca xew ah, diggante boobu ak ya ca xew ak euh, demaat na ban koy jugé di ko atte ci biir ci bi nga xamee ne nekk na ci diggante boobu mu doon dem njole ndax par àllarba la daan dem tribunalu njole bi ndax booba tubaab ba daan ñëw di ko tuuse xaalis ba moom la xaañ xaañ googi nag mu waxante ci ak yàlla sëñ bi ne ne yàlla bu dee yaay xaalis ma war laa téye wala bu dee yow yaay yàlla di yàlla su dee yaay xaalis nag ndax dañoo jàpp ne nee na xaañ gi sëñ bi xaañ loolu pièce xaalis yooyu ngurdu yooyu ñu def ko ci sa kii bi mu euh, moom la ñu jël euh, moom la ko dóor cib jë sëñ bi ne ko nag bu fekkee ne yaay yàlla ma war laa jaamu xaalis bis ni tey bu mu tegoo tegooti sama loxo su fekkee it ne mbindeef mii di la tëkk tëkkaleeg leneen lu dul loolu nii ma jëlee peesu xaalis bi xaalis bi suul ko nan ko suuli noonu ba ca ëllëg sa rek ba nu xëyee la la kooka daal di dee noppalu nu suul ko tubaab bi nag daal ne sëriñ bi comme yow yaa ko rey nag ñu daal di tàmbali ubbi tribunal ba di ko yóbbu njole di ko àtte muy dem ak dikk noonu nii la fa nekkee ba ya xew ba bi nga xamee ne dem nañ ba ëxlul badar dafaa fees dafa dañoo ñëw euh, foofee feeñ fa nag tubaab yi gis leen ca fajar ga gawar ga rafet ànd ak leer gi leer gi jolli ca lañ commencé nag négociation bii nga xam ne am nañ ba nin ko nin ko ñibbisilee négociation boobu nag tubaab bi daal di dikk ne sëriñ bi ndax am ndekete da am yow armée boo àndal di ko nëbbu ndax dangaa am ñeneen sëriñ bi ne leen déedéet daa am ñoo àndal sëriñ bi ne leen déedéet ndax boobu ñoom gis nañ waa ahlul badar jëx fa falo ñu tàmbali nag di naxanteeg sëriñ bi ba ñibbisi gi li ci am am ci ba bi bato bi teeree ndakaaru mu dellu siwaat dinaay faral di wax ne jumaay Masaalikul Jinaan ah gisuma sax xëy na nag fu ko sëriñ bi bind ndax wax ji dina ci bëri waaye wax ji li muy bari nag dañ wax li am rek waaye li wóor ba wóor moom mooy sëñ Tuubaa bi mu ñibbi si waatee julli juróomam ay farataam ndakaaru la ko njëkk a defee laataa Tuubaa ak Daaru Salaam kon julleem googu mu julli woon Dakaaru du nen moo ko may ndam lii tey jii kon loolu euh, tuuti la ci tënk boobu ci wàllu géej gi ndax waxtaanu géej gi rek euh, su ma leen ko doon jëlal di ko def te tënkuma ko mën naa cee def ak yéen Eh, ci tolluwaay du xaj ci bis mën na noo def li ma jàpp daal ne mën naa koo def man ci waxtaanu géej gi ak eh, mënees su koo def mooy bis bu yàlla sàkk bis bu ne mën nañ cee def ñaar ñetti waxtu ba mu toll ci ayug bis wala fukki fan te du yegg kon xam ngeen ne loolu liggéey bu rëy rëy la xaside yi moo waral géej gi boo koy seet ndax lëggéey la boo xam ne nit mënu ko malaayika defu ko wàlliyu yi fi jaar kenn mënul lëggéey bu mel noonu nga def ko ndax dañuy wax ne sëñ Tuubaa bind na sept tonnes cinq cent dëkk bi laa toog am sama ay xarit yoo xam ne waa dëkk bi lañu ay nasaraan lañu a ah, ñu ne benn ton ci mbind nit mënu ko benn ton ci mbind nit mënu koo bind rawatina set tonnes cinq cent may leen ah loolu ñun waxuñu ko sëñ tubaa waxuñu ko waaye yéen seen maam ya yóbbu woon sëñ tubaa ñoom noo ko wax ndax bi nga xamee ne eh, sëñ bi li ma wax sànq xaalis boobu nu ko daan tuuse nga xam ne buñ ko ko joxee du ko jël tubaab bi bi ñu demee ba gis ne nanguwu koo jël te inspecteur yi trésor bi ko daan def ñoom ñu ne faw prisonnier la boo xam ne xaalis boobu da koy war di jël ci la tubaab bi dem di nattanteeg moom nag ne ko léegi xaalis boobu léegi ndax mën nañ la koy jox ay kayiti ki ANCAR boog di la ko joxe loolu tam bañ a doonati xaalis sëñ bi nangul leen loola. ñoom tubaab yi ñoo wax ne tuuse nañu Cheikh ba Bamba 7 tonnes 500 ci kayit te lépp la bind. kon loolu sax sëriñ bi waxu ko tubaab bee ko wax 7 tonnes 500 yi ñuy wax waaye nag mu nekk liggéey boo xam ne tagg yonent bi te sunu borom ci boppam ba mu jullee ba noppi waaye sëñ Tuubaa it fekk na fu mu mës a bindee moo xam da koy fekk ca xasida ak raay moo xam xasida ak ala man la foo ci dem rek maa nga naan bi man amel naa la ci bépp bépp fi kulli amin ci bépp at bor boo xam ne day nekk ay tagg yu rafet yu sell yoo xam ne te bu ma la tagg ren rek du bokk ak la ma la tagg déwén dinaa seet baat yi gën a neex ci làkk dinaa seetit ci peese bëxru yi gën a rafet gën a neex ci aw tagg may jël di la ci tagg ci at mu nekk te dana wuuteeg ma ma defoon daaw sëriñ bi nag noonu la daal di nekkee nag loolu di lëggéey nag di tagg ay xasiida di bind ay xasiida jëmee ko ci Seydina Muhammad mi nga xam ne gëmul lu dul moom loolu yi nag nga xam ne moom ca la ca la nekk nag ndax moom lu ko jiitu ñi mës a yor ñëpp moom Sëriñ Tuubaa da leen mës di yor ci tawxiid yu rafet muy téere yu njëkk yëm bind moo xam tey jii dangay seet ci ne jawharu nafis bii la wala muwaayibul xuddus la boo ci dem tey jii rek jàngalu la lu dul farata sunna tawxiit ca la nekkoon jël nag téere yi nga xam ne boroom xam-xam yu njëkk yi fi jaaroon ñoom ñoo ko bindoon ba ci laxdar yu bii nga xam ne li wax jii bari tunisien bi ko def muy si Abdourahman Laxdari éggaliwu ko da koy bind ba mu am fu mu yem eh, ndax boo demee ci biir ma nga naan yéene woon naa ponki lislaam yi lu ci nekk ma def ci waaye boo demee ba toll ci buntu julli ba rek fa la daanaka sëñ Tuubaa nag bi muy woy jëwhër moom dañuy dafa yéene àggale téere boobu sëriñ bee ko yeggale ba mu yegg sëriñ bi nag bind téere yooyu di leen ko jox moo xam mu nawiru sudóor la mu layilu sudóor yooyu yëpp sëriñ bi def téere yooyu di jàngale tawxiit di jàngale tasawuf di jàngale ihsaan ndax lislaam ñaari xeet la ndax lislaam dañu am lu ñu tuddee imaan am li ñu tuddee lislaam islam mooy lépp loo gis nit ki di ko pratiquer muy bu julli jotee mu jug di def kooku lislaam la tudd. imaan mooy lii ngay gëm ci sa xol imaan googu nag ngay gëm dafa laaj li tuddee tawxiid gu wóor wóor te ci biir tawxiid googu ixsaan googu moo ko làmb mu muy rafet nag ixsaan googu ko làmb nag moo dem ba jur tasawuf gii tey nga xam ne kooku beneen buntu la boo xam ne jëmmi jamono xëy na daan ci àgg sëñ bi nag jël ñoom ñoo ñii di leen tarbiya di leen jàngal ragal yàlla di leen jàngal loolu nga xam ne sëñ tubaa mbiram génnul lu dul sunna génnul lu dul téere bi yàlla bii ci lu baax ci di ko digle boo doxee ba tey nag gis ab murit ñu lay suufeel wala ñuy wax baat yoo xam ne naan da ngeen a fanatique da ngeen a topp ndàngam da ngeen a topp lële te alxuraan a fi nekk ak euh, euh, euh, sunna si yonent bi alxuraan ak sunna si yonent bi enseignement la enseignement la boo xam ne la nga ca bëgg jëfandiku di am njàngale da nga ca jaar ba àgg ci sa borom ndax eh, yonent bi wax na ko dénkaane ko ne bu ngeen fonkee lii ma leen fi bàyyil boo leen ko fonkee rek muy alxuraan ak sunna dana leen dimbali ci lu bari sëñ Tuubaa nag ñi ma sa àndal ñëpp dofloowul kenn réerloowul kenn mooyloowul yàlla kenn lu dul dafa jël nit ñi sellal leen ban sell ndax kuy seet jëmm yu baax yooyu nga ma doon laaj léegi kan mooy Seex Isaa Jenn xoolal na mu selle na mu baaxee nga xool la sëñ Touba def ci moom nga xool tey jii sëñ Daam Abdourahmane moom leer ga ne ca moom ngay xool Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne dafa kamaal yegg ba sës rëkk ci yàlla ba mujj gi waxi doomi aadama yeeg waxi bàyyi may gi sax xàmme xàmmetu leen loolu rek sës na lëkk te la ko sësale mooy tawxiid gu rafet gu sëriñ bi def ci moom ak jël baatub yàlla bii di kalimat bu tedd boobu nga xam ne Serigne Touba wax na ne bu leen noonoo mukk képp ki nga xam ne gémmiñam gii dee génne baatub laa ilaaha illallaah Cheikh Ibra nag nekkoon ca loola sëriñ bi nag ñoom ñooñu ci la ci la jaar ñoom. bi nga xam ne dem na ba téere yooyu na ba ni mu woyee Masaalikul Jinaan bi nga xam ne daanaka rek ne lay defar doomu aadama ci dundam lépp maa nga ca di lay jàngal ba lay jàngal sax doomu aadama yi seen boppit eh, melo yeni melowoo sax di woote yàlla ca kaw ga waaye biir ga du yàlla sax boo demee lépp sëñ Tuubaa ngi koy jàngale ci biir nan ngay defee ba mucc ca la waxtu wii nga xam ne sax coow la tey ndax boo toogee léeg-léeg ma toog ba yàgg ma ne Sénégal jàngunu Serigne Touba eh, ndax dangay toog dégg eh, waxtu julli fi mu ne ay laam-laam la fa waaye boo demee ca Masalik sëñ bi leeral na waxtu wu ne naka la ñuy duggantee ak waxtu woo génnee ak yëpp boo demee yooyu yëpp bind na ko ba ba mu yegg jàngale ko leeral ko ci wàll wu ci nekk kon. Euh, looli yi sëñ Touba ca la nekk nag bind na ay xasiida waaye li mu bind ci sunna bind ko ci farata bind ko ci charia def ay téere yoo xam ne tuwaar fa kàll sell na rafet na doog a jàll nag ci tagg yi nga xam ne moom la daan tagg Seydina Muhammad tagg yooyu yi nga xam ne daan na ko tagg yonent bi it demoon na ba bi nga xam ne la ci soobu it mujj gi bindatul leetar benn leetar boo xam ne sax bindati na ko lu dul kuñ daan wax sëriñ Mbacke Bousso mi nga xam ne sëriñ Bousso bi juru ko te sëriñ Bousso bi ak maam jaara bokk lépp rek bokk wéjur yi bokk lépp moo daan bind ba noppi leetar ya sëñ bi wax ko ko waaye sëñ bi nee na dem na ba moom waxtu woo xam ne dafa yëkkati xalimaam bëgg bind rek nee na Seydina Muhammad bëgg gi muy bëgg sëñ Tuubaa nee na dinaa ko ruusa ruusa ruusa delloo sama xalima di wax leneen rek lu dul wéyal nag sama tagg ba tax na sëriñ bi bindatul dara nag lu dul ci xaside yooyu la nekk xasida nag day defar doomu aadama ci lu gaaw ndax dina jël doomu aadama tëgg ko tëggin woo xam ne day sellal sa jëmm day raxas sa xol dalay marale ak yàlla sa borom dalay jox ay garaat yoo xam ne ndax képp koo xam ne da ngaa gis muy jàng xasida muy a bon wala muy ami aal wala muy def yoo xam ne day wax ne xasida gi moo ko yóbbee moom am na sikk ci biiram waaye du ca xasida ga ndax xasida saa boo ko jàngee da ngay féex saa boo ko jàngee li ci boromam def mooy da ngay gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam saa boo ko jàngee bu dee ci rub yàlla la sax danga koy am saa booy jàng xasida sax dina am leer guy nekk ci yow goo xam ne yow doo doon sa seetu waaye nit ñi lay gis nit ñi ñooy xool di xam ne am nga yow soppiku waaye yow soppiku sax boo ko yëgul sa bopp nit ñee koy yëg sa bopp day tamit di di di def ci doomu aadama dal xasida yaa xam danga koy danga koy jël di bind yaa xam euh, ni mu ko waxee am danga koy déglu yaa xam nee na am di ko xool di xool sax kii bi te mënoo koo jàng waaye day def ci doomu aadama gi dal waxtu woo xam ne yaa ngi toog di dégg xasida ñu koy jàng day def ci nit ki ak dal lii nit ñi di tuddee jamono di tuddee pression ak stress ak yooyu xeet yooyu xasida moo ci gën a gaaw ndax waxtu woo koy déglu day raxas loolu ci yow dalay lay dindi ci yow yooyu ndax eh, secret nga ca te it xasida asraar ma nga ca leer ma nga ca ndax ñëpp bindoon muy kaxaabag ñu baax ñoonu xasan ibnu saabit ñoom ñooñu nga xam ne dañoo def xaside yoo xam ne sëñ Tuubaa nee na ñooñu seen xaside ya nuurun wa asraar nee na leer ma nga ca ay secret ma nga ca secret yooyu nag sëñ Tuubaa ne ñooñu lañu bindoon man romb naa leen sama xaside yi moo man ñoom lañu bindoon kon eh, yaa xam yow ban secret ngay wut yaa xam ban lan ngay dox noonu waaye boo ko làmbee ci xaside yi sëñ Tuubaa yi da nga ko ca fekk xaside it day saafara ndax fii jamono toll tawat yi bari na gis ngeen jafe-jafe yi gis ngeen fi jamono toll waaye xaside eh, ndax moom daan na bind di wax ne kitaabati saafi nee na sama xaside yi moo may saafara sama xaside yi day saafaraa kooku sëriñ tubaa daan na ko bind di wax ne xasidaam yi njariñ ya ca nekk xaside it day joxe barke képp koo xam ne day jàng xasida te sellal njàngin wa sellal jëmmam du torox mukk barab ban koy jàngit barab ba du ràpp mukk barab boo gis xasida moo fay njëkk xasida moo fay mujj ñu fay def lu neex yàlla barab ba day jëm kaw du deltu ginnaaw képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo xasida yi loo bëgg ci àddina it yàlla mën na la ko jox ab murit it teraanga it mën na bawoo fu nekk mën daa wut si waaye nag du rëy ba ëpp sa bët sëñ tubaa ak mbindam mi ndax sëriñ bi ci boppam mafaatil bisiri mooy lan caabi àjjana yi caa mbégte yi yow kay bu fekkee dangay ngay stressé wala sa xol day naqari wala yow nangam nangam moom dem na ba ne caabi mbégte yaa ngi nii ma mafaatix kay maanaam al miftaax mooy benn caabi waaye caabi yi kon bu nee caabi yaa ngi nii caabi mbégte yi koo kon tegtalu turu xaside yi ak yamu cay def ngay dem ba yàgg di gis xaside yi waxin ya ak turu yàlla ya nga sànq lasmaawul xusnaa bii nga xam ne maa ngi koy dégg mu koy woy nga xam ne dangay dégg mu naan xaabidu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa noon la defaatee xasida goo xam ne dafa dindi yaay yaaya sax fa def xasida yoo xam ne turu yàlla yaay ñëw rahmaanu rahimu malik rek noonu la koy toppee muy sell ak boole ko nag di julli ci Seydina Muhammad julli yu rafet yoo xam ne noonu yi nga xam ne la xasida mel nag kon xasida ci boppam eh, des koy tàggat ci ndaw ñi des koy tàggat ci góor ñi des koy tàggat ñi am na lim boo xam ne da koo defoon daan ko dénk waa këram ñi ñu ko daa jàng ci ay ay ay xasida la woon mu tënk ko eh, yooyu yëpp nag xasida li may faral di wax amul bu sut morom ma amul bu yiis morom ma lépp lu ci bawoo ci sëñ Touba lépp lépp am solo am na xasida yoo xam ne boo leen yëkkatee tey jii kayit wa mën nga koy jàng ba mu nekk sans nangam aw kayit te boo demoon ci xasid ak jawartu gële léeg-léeg nga fekk mbind ma sax du mat fukki kayit ak ñaar wala wala wala juróom-ñaari kayit la te fii mu ne ku dee ku ne nu defal la ko aw kayit mu jàllale la kon na mbind mi bawoo ci sëñ tubaa rek bari waay gaak tolluwaay gaak lépp waaye xasida daal barke ca nekk njariña ca nekk day dalal doomu aadama képp koo xam ne it am dalaat të del jàng xasida tey joxe yi ndax sëñ Saali wax na ma ne ma àddiyee dana fekk fu dara nekkul mu def ko fa bu néewit mu dolli ko bu néewit mu dolli ko boo ko boolee di jàng xasida nag soo yorul woon da nga yor waaye li ci jiitu rek mooy sellalal jëmm ji te xool ki ko liggéey bi muy liggéey xaside yi daf ne sefet nit ñi génn leen jël diirub juróom-ñaari at yoo xam ne gisul nit gisul jinne bu bëggul wéttal lenn rek ngir liggéey bu sell bii nga xam ne du liggéeyub nit mu def ko xasida yooyu nag liggéey boobu moom nag ginnaaw bi nga xam ne jumtuwaay yi muy xalima yi muy daay toppatoo bi ñu ko daan toppatoo saytu bi ñu ko daan saytu nga xam ne ay nit a nga fa woon yoo xam ne sot lañ daan def saa su nekk di sot xalima yi ñee ña nga daan toppatoo xeeti daay yi daay yi lànqar jeeg daayi yi ni def léeg waaye fu ko mbind mi jotee rek dem na moom sëñ bi sax ba bind na sax foo xam ne daa bëgg bind te amul daa dafa cosati deretam deret ja nàcc mu jël ca deret ja tàmbali ca di ci bind kon kooku tey ku jël liggéeyam boobu di ko fooyee rek yaa ngi yàq lu rëy rëy rëy ndax dem na ba dereti boppam mu jël ko di ko di ko di ko bind di ko bind kon kooku loolu lu rëy rëy rëy rëy nga ca biir xaside xaside yooyu yi nag moom ci boppam it nga xam ne moom dundam léppam da koo jeexal ci ci ci ci wàllu woowu loolee daal nun ca war a gën a góor góorgóorloo rek ndax xaside yi moom leera ca nekk barke ca nekk wilaya ca nekk jàmm ca nekk suturaa ca nekk njàngum xasaayit lu rafet la ku leen ko bëgg a soofantal ah kooko dafa yàqu rek ku bëgg a wax leneen ak leneen ak leneen ndax kat nee na xasidaam yii boo demee ba ca arasa kursu yi ñu ngay bégal borom bi nee na xasidaam yii ëllëg yowmal xiyaam nee na man mii la Seydina Muhammad di tiitaroo ca kanamu ci yëpp ndax mbind mu rëy mii nga xam ne defal naa ko ak liggéey bii noonu nag nga xam ne la amee woon jumtuwaay noonu la tàggatee ndax xasida yi doon sëñ Masamba rek sax xëy na euh, moo ci gën a siiw ci euh, taxawaay bi nga xam ne sëriñ bi jàngaloon na ko ni mu daan defee ndax sëñ bi daan bind la mu bind bu noppee topp bindaat mi rancé bi ndax na sëñ bi bindee rek la koy bindee waaye da koy bindaat moom ci anam boo xam ne du bokk ndax sëñ bi bu aal bi ñëwee rek da koy bind comme brouillon bu ko defee nag sëñ ma Masamba la ko daan joxaat mu waaye sëñ Mourou Moustapha nga ca woon nag. waaye it sëñ Fàllu ña nga ca ma nga ca woon it ku ñuy wax sëñ ma jëmbu silla ma nga ca woon ak ñu baax ñu mel ni ñoom ñoo ñi ñëpp ab kuréel lañ woon boo xam ne suba ba ngoon mbindum sëriñ bi lañ daan jël di ko toppatoo waat di toppatoo xaside yi di saytu liggéey bi ni ko sëñ bi bëgge lu gaal rafet rafet rafet rafet xaside rek la ci daal def sëñ bi musta jëkkati genn gaal di ca def alal musul am gaal gu mu doon ak lu mu sëf bu ñëwee sotti na loolu jël téere yu baax yi di ko ca def bi muy ñibbi si ci géej gi jiitalul benn bagage boo xam ne lu dul maal yu defoon ay mbindam def xaside yi loolu moo jiitu woon ci moom kon kooku wàllu woowa defoon na ca la nga xam ne moo ca këram it néeg yi nga xam ne da ci daan jël di ci def xaside yi néeg yooyu da ko daa jël di ko defar def ca lal yu rafet def ca lar ko lañ di leen tagg di jël mbind mi di ko ca def Eh, fii nga xam ne it moo doonoon néeg yi nga xam ne ab néeg a nga fa woon boo xam ne baytil maal la woon fu daan ci alal eh, foofu it amul woon sax kànnaar bu koy tëj sëñ bi dara wax naan sama alal képp koo xam ne lu la ci soob rek doxal nga def ko ba taxoon na kenn ñimiwul sax di farandal dërëm wala di fa def lenn waaye fa nga xam ne nag fa la mbind ma nekk fa la xasida nekk foofu la ñuy kànnaare foofu la ñuy tëj foofu la ñuy soog sotti lar ko lañ kon loola mbind mooma booba réyoon na ci moom ci wàllu woowa lool xam naa ne mënoon naa cee gën a bëgg a yaatal ndax sëriñ bi moom diwaan yi mu bind nga xam ne la def quraaniye yi nga xam ne moom la jël defaat ko quraaniye bi nga xam ne àndut ak aaya ak salawaat yi nga xam ne da koo julli ci yonent bi ak yi nga xam ne ay way la ak yi nga xam ne ay nasar la yoo xam ne nga yooyu la jël nga xam ne tu daara ni bale nga xam ne moom la Yuusufa Ibrahim euh, Ismaahil Nabahaani defu mu tudd tu daara ni euh, def ko noonu boo xoolee mu xaddimatul xetma bi mu bind nga xam ne dafa wecc téere yooyu doole nga xool jaalibatul maraqib bii nga xam ne dañ koy jël di ñenn ñi di ko tudd di méngale ak dalaayilatu xayraat bi nga xam ne euh, ay njariñ nga ca ay secret nga ca ndax dalaa itul xayraat boobu euh, sax dafa am euh, salaatu bu ca nekk benn salaatu boo xam ne dana faj aaju lu waay bëgg mën na ko am ñoo xam ne dañuy dox bis ba ñëw ci teen boo xam ne teen ba bala nga caa am ndox da ngay sonn teen ba xóotee na daanaka luy jege téeméeri meetar pour ñu am cam ndox ñooñu di ca yendu di ca yendu di ci yendu am ndox di leen jafe am jigéen joo xam ne salaatu bële la mën soxna sa ba mu ñëwee dafay wax salaatu bi rek bu ko tiflee ndox mi day yéeg ba ca kaw mu root ba doyal ba ko ñooñu laaje ne ko yow luy sa secret muy leen xanaa da ngeen a xamul salaat bi nga xam ne moo nekk ci biir téere bii di dalaayitul xayraat boo leen ko xamee boo leen ko waxee di ko jëfandikoo ni ma koy jëfee boo leen laajee yàlla am ndox mu jox leen sëñ Touba nag ba mu defee nag xasidaam boobu di jaalibatal maraaxib nga xam ne tey bari na ay yëngu lool lam mayoon borom dalaayitul xayraat boobu may na ko lu ko fawx ci jaaliba bii tey ndax lee jigéen a taxawoon di ko def te bu jigéen ja waxee rek mu yéeg ca kaw kon tey jii da ngay gis ne nee na lu raw loolu ma nga ca biir nga dégg ni ko ni ko waykat yi indee ñi ne ba mu ko bindee dafa jël téere ba sax sànni ca géej ga ren ba déwén téere ba dog di ñëw mu ne bu raaful tooyul yàlla gërëm na téere bi waaye téere bi biñ seetee ki ko for dafa tudd ku ñuy wax benn sàndarma bu tudd Muusaa loolu mu doonoon sax sëñ bi kéemaanam moom ndax Moussa moo jugoon di wax ak yàlla te sëñ bi moo jug di waxaat ak yàlla ci eh, téere boobu te kako ko fortu du muusaa wëqante boobu loola feeñ ca loola nag moo nekkat ci xaside yëpp ba ca mat la matlabul shifaay bii tey jii nga xam ne tawat yi bari na jàngo yi bari na recherche boo gis tey jii ñu koy def boo demee sëñ Touba nee na tawat joo gis bu la jaaxal moo xam juy wàlle la ca Siin moo xam juy wàlle la ca Afrique de Ebola waaye tawat jum ci doon nee na dana ko saafara ndax yàlla nee na laata muy wàccee tawat ja nee na la koy saafara lay wàcce fi mu ne laboratoire yi seet tawat waxtu wu nu trouvé tawat ja li koy faj rek mooy garab gu nu doon jéggi la te loolu sëñ Tuubaa bindal na leen ko yàgg na kon loolu eh, ci wàllu xaside yi noonu la daal di demaatee ba boo xamee ne balaa am na ah def ay xaside yoo xam ne balaa lay daq ah am na xaside goo xam ne peste bi la fi jëlee bi nga xam ne sëriñ Mbacke Bousso ak sëñ Daam Abdourahmane bokkoon na nañoo nekk ndaam di yor njàngale mi foofu bi nga xamee ne nekk sëñ bi nekk na ci géej gi a ah ñu dem ba sëñ Mbacke Bousso ci boppam tawat dal ko mu wax ko sëñ Daam sëñ Daam ne ko amuñu pexe kat lu dul kon nan bind leetar sëñ tubaa ñu bind leetar yónnee ko sëriñ bi sëriñ bi ba mu leen tontuwaatee ci xasida ka xasida googu commencé waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu moom la ndax lettre ban ko bind moo tax sëñ bi bindaat leen lettre boobu yaa bi bil Moustapha daal di ñëw def xasida ga ba xasida ga dikkee ñu jëfandikoo ko bind ko saafara jàng ko di ko jëfandiku moo fi jëlee pest bi ba tey jii nii baraba nga fa boo xam ne boo fa demee sax ku fa àgg rek boo fa toogee sax ndax sëñ daam daa joon def te taw féexi ñu jël def ko ci barab ba ku fa ñëw saafaraw te tey xasida gaa ngi fi ku ne mën koo wecc ko kon tawat yi nuy gis nangam nangam yi yii nit ñi di def sax lu xew rek léegi ñu daal di jël ne sëñ Saaliw nee na xaatim bii wala nangam nangam ji wala lële sëñ Touba njabootam mosunoo saafara loolu sëñ Saaliw euh, euh, bu weesoo ñaanam yu tedd yooyu mu daan ñaan ci muslu ci yàlla ñun ko xamee bisimilah yi macha allah yooyu mu daan wax boole kook euh, mus muslaay ak mucc yooyu loolu lañ xamoon ci moom la ca des nag mooy xaside yi sëñ Touba yi la daa teg tegtale wala alquran bu balaa amee ñu jàng ko ñu muslu. ak julli ci yàlla ak tuub ak jéggalonte tuub ak jéggalonte loolu jamono yàqu na ku ci nekk nag di wër di wax waaye xasida lépp nga ca biir lépp nga ci biir lépp nga ci biir xasida yooyu kon nag loolu eh, yàlla dafa boole li am njariñ àddina ak li am njariñ àllaaxira dëxañ ko jox ko sëñ tubaa sëñ tubaa jëxanaaj ko def ko ci biir xasidaam yi kon xam naa ne bu ma toppee wàllu woowu sax danaa ci gën a xaabaabal waaye xasida yaa ngoog tëjee jotaay bi rek mooy doon laaj sëriñ bi maanaam jàngatam tey ji ci yoonu murit ak euh, vision bi nga xamante ni ni am na ko ci yoonu murit ak li muy dénk taalibe yi rawatina taalibe yi nga xam ni fii lañu ñu féete ci bitim réew. waa kay jërëjëf yoonu murit yoon la woo xam ne yàlla moo ko gërëm. yoon la woo xam ne yoonu rawuwaay la yoonu murit nag ci bitim réew ak ci biir Sénégal lépp day tudd yoonu murit waaye bu fekkee ne man ni ma gis mu bëgg daal mu gën a baax mooy yoon wi dañuy jël lépp delloo ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba nu bàyyi parparloo bàyyi berberloo bi bàyyi clan yi te xam ne benn sëriñ lañu am muy sëñ Touba murit moom mën na baaxee fu nekk waaye yoon wi moom ndax sëñ Abdou daan na wax ne bu nuy wax murit koo tax ndax nee na jëmm ju ne aw tur la wuyu waaye koo xam ne boo ko jàppagul tuddoo murit te boo ko bàyyi doo tudd murit bu nuy wax murit kookoo tax ndax sëñ Touba bu ñëpp bàyyee moo fi des di sëñ Touba bu fi ñëpp nekkee moo fi nekk di sëñ Touba kon kooku bu ñuy wax ab murit moom moo tax kon ñun ñi nga xam ne ñëpp dañ cee bokk te am na ci ñoo xam ne sax ci tarixa bi eh, danoo jaay seen lépp wëlbatiku nekk ay taalibe ndax nekk ci taalibe dafa gën a wóor loo mën a gis ndax yoon wi yoon la comme yoon yi lislaam yi ni nga xam ne si Ahmad Tidiane aw yoon la si Abdou Khadir Jeylaani aw yoon la waxtaan wi eh, eh, xaw a gàtt waaye kon mënees na koo jël ci tarixatu ya ñoom ba ñuy feeñ ci sixième siècle di dikk ab Seex Abdul Xaadir Jilaani di mbër mu rëy ñu wane kéemtaan yu tax nit ñi delsi ndax lislaam yàqu-yàqu yi ci amoon Seex Ahmed Tidiane tubaar fa kàlla boo gisee moom it la mu def ak la mu la mu lëggéey ak la ko yàlla may ak dem ba suñu borom may ko sax ne ah, bis yoo xam ne wala ku ko gis doo dem sawara bi ko yàlla defalee loolu sax dafa mujj ndax moom def na ñeenti at yoo xam ne xalwatu ko def toog jublu benn barab di ñaan yàlla yoon yooyu yëpp nag am na ay taxawaay ci ay fu muy jaar yoonu murit it noonu la mel sëriñ bi jaarale ko fi muy jaar ba yàlla defal ko lim ko ci defal muy yoon woo xam ne yàlla sunu boroom def na ci def na ci lim ci war a def lépp kon loolu ngal la nag ñun ñi nga xam ne dañ caa bokk rek ñëpp nag ndax yoon wi moom ku dul sëñ tubaa rek moom wàlli yaan nga cey doon ndax sëñ tubaa ko moom am na sax ah mag ñu baax ñoo xam ne ñoo sëriñ bee ko àndoon taxawal tey bu doon dañuy wax ne ñooñu am nañu membre fondateur sax ci tarixa bi am na ñu ko doon waaye ban ko doonee dañoo jël seen loola jaayaat ko nekkaat ay taalibe ànd ko sëriñ Touba ndax Cheikh Ibra mii nit ñu ko wax ñu ne Cheikh moo feeñal sëriñ bi moom da daan bañ baat boobu mbooloo daje na ci moom sax ban ñëwee ñu ne ko yow mi nga xam ne Fall yaa feeñal sëriñ Touba. da leen a delloo seen addiya ba mu jekk ne leen ndax xam ngeen picc mi ni wax reeteet ñu ne ko reeteet mu ne leen reeteet mooy picc moo xam ne waxtu woo ko déggee muy seb di ratatati ratatati ci àll bi baykat bi bu ko déggee rek dara xam ne gis na danger bu tax muy sab ñu ne waaw muy leen bu ko defee kooka faj fab la muy fab mën a jëflanteeg loolu Seex Ibra ne leen maak picc moom yi rek a yem sëñ Touba damaa ñëw di ko feeñal ba feeñee ca waaye man mënuma koo feeñal sëñ tubaa ku mu doon rek ci àddina dangay ñëw di ko feeñal ba feeñ ca waaye kenn mënta feeñal sëñ tubaa kon sëriñ bi nag mbiram moom yi ba bërki démb dégg ngeen li sëñ Muntaxa wax mbirum sëriñ tubaa moom wàlli wa gën a aytal ca yàlla sax bu ñëwoon di ko yàq tën a yàq ndax defaru na ba noppi te dootul yàqu ndax yàlla suñ borom moo gërëm loolu ndax ba euh, moo gërëm loolu kon loolu euh, bu fekkee ne am na it ñun suñu boppit nga xam ne jëmmi doomi aadama rek lañ yor noo war a jóg nag aar loola sauver loolu ndax tarixa bi dafa amaat ay yokk-yokk war a yokk yokk na yàlla moo ko yóbbu fi mu nekk boromam yóbbu ko fi ne waaye kenn ku ne ci ñun ñii am nga ci euh, euh, taxawaay boo xam ne moo war a doon sa taxawaay ci tarixa bi jëm foofu kon kër sëñ Touba yi nga xam ne ñu ngi koy ubbi te waxtu wuñ ubbee barab ngir sëñ Touba day mel ni am na beneen responsabilité yoo xam ne wala am na ay clan wala am na ay léegi loolu yëpp sëñ Touba ci boppamit it santaanewul loolu boo jëlee sëñ Mortala mi nga xam ne jihaat ju mag ji mu def dugal fépp lislaam dugal fa yoon wi dugal fa njàngum xaside dugal fa njàngum alquran dugal fa ñuy julli jàkkaa nga fa foo ci dem bëggoon na loola it barab bu ci nekk murid yi fu ñu nekk rek loola war a mën a dajaloo kon tey ci àll bi man ni may mën a gis gis ko senegal rek benn bi la mooy nanu gën a booloo rek nanu gën a booloo ndax mbooloo jàmmoonte rek moo nu jig ndax jàkk ji sax bu fekkee dafa nekk lislaam dafa bëgg nu bokk ba dem ba am ci sax dikk mooy di julli jee ca jàkk ji ëpp na yool jullee ko sa kër te julli julli la julli ci kër gi julli ci ndax ku jël sa néeg sax def ko jàkka jàkka la tudd waaye nag mbooloo mi nga xam ne nangu nañ ne mbooloo mooy yërmande jamaa boobu la nuy bëgg nag ñun sunu bopp nuy gën a dajale gën a bokk suñuy pas-pas dindi yenn yenn naan yi lépp loo xam ne sëñ Tuubaa ko moom nu dox ko ko lépp loo xam ne njabootama ko moom ñu jox ko ko lépp loo xam ne taxawaay la ñu jox ko ko tey suturaalante tey jàppalante bu dee ci àll bii nga xam ne ñoo ngi fi eh, di fi bokk di fi nekk waroon na mën a gën a yaatu yaatuwaay yoo xam ne bu ci nit nekkoon amul kayit sax ñun war na noo nekk communauté bu am doole boo xam ne fan la ñuy jaar ba wutal la aw këyit te loolu du génn ci ñun lu dul danañ am suñuy awakaay bopp yoo xam ne ñooy toppatoo suñuy dossier te ay sénégalais ndax xale yaa ngi jàng xale yaa ngi jàng màgg ci dëkk bi yor loolu am ñoo xam ne tey di taalibe dañoo war a ni nu amee keesug àddiya yi ñu war a am fond boo xam ne du jug lu dul di dimbalante bu nit amee tolof tolof nekk ci loxo nu seet fan la ñuy jaar ba dimbali ko te amutub liggéey ñu seet fan la ñuy jaar ba dimbali ko la ca des nag mooy Touba dafa lënkalikook immigration ndax bu ñu nee immigration rek ñu ne Touba loolu nag Touba tànk yam ca war a dox ak défendre gum koy défendre tamit ba ñun ñii ñi nga xam ne nan nekkal ci àll bi ñuy bàyyi njabootug sëñ Touba gi xel di bàyyi taalibe sëñ Touba yii di leen bàyyi xel ci àll bi di leen jàppale ci liggéey bi di leen taxawu ci liggéey bi lépp loo xam ne Euh, mënees na ko rek loola mu jëm ci wàllu woowa. sëriñ bi moom loolu la bëggoon boo seetee njabootam gi mu yoroon yëpp di ay taalibeem ndax sëñ Tuubaa doone doom waaye njabootam moom mooy ay taalibeem rek daraan boole diw mii ak diw mii bu jëlee sëñ ma sàmba jóob Sam dana ko booleeg Cheikh Issa Diène dana ko booleek maam Thierno lëkkale leen ñu doon benn jël diw ak diw lëkkale leen ñooñe dañuy dem ba seenu njaboot sax di duggante ci wàllu deret kii jóge na fii kii jëm fii. booloo googu loolu la laaj nag yoon wi taxawaay boo xam ne wares na koo gën a mën a yaatal ndax sëñ Tuubaa kat yomb naa liggéeyal ndax bind naa di wax ne alifahoo kullul ibaat xarafahoo kullul bilaat sëriñ tubaa ci boppam réew moo dem xam na nu kan mooy sëñ waaye jaamub yàlla boo gis xam na kanay sëñ Tuubaa kon liggéey bi ci bitti tamit dafa amaat beneen wàll bu fa nekk mooy daayira bi nga xam ne am nañ ko mu nekk fu nekk tey ci àddina bi moo xam pare gii la moo xam li wër ci Europe gii Allemagne la wala Belgique la wala itaali gi la ba ca Suisse gële wala ba nga àgg tey diggante boori Amérique gële liggéey bi mi ngi des tey nan la ñuy fexee sëñ Touba moomu ñu dugal ko ñun waa dëkk ban fekk ndax bu fekkee ne tey ñun ñiy jógee Sénégal rek ñoo fi nekk di ñuul ñooy daje ci kër sëñ Touba gële bu màggal jotee ñoo fay ëpp nan la ñuy fexee tey ba ñu weex ñi ñu leen di dugal ci biir ñuy dugg si loolu mooy liggéey bi waaye nekk naa murit jébbalu naa ci Sénégal di wéy sama sëriñ nga ñëw fii di jokk ci kër sëñ Touba gi kooku loolu association la waaye liggéey bi dëgg dëgg dëgg dëgg nag mooy kenn ku nekk nag tey benn taalibe bu ne sax yow bu fekkee ne man ngaa fexe ba jël sa benn xaritu nit ku weex nga fexe ba mu doonu murit loolu bu bu yàggee rek mbooloo immigré mi ni mu toll mbooloo mbooloo nit tubaab bi dina toll noonu benn taalibe murit bu ne nga sas sa bopp fexe ba convaincre sa benn xarit loolu mooy doon yokk-yokk bi ndax sañ tubaab ba tey jii ñun dañ koo tëj tëj ab liggéeyam ndax bariwaat na lu ñuy gëstu ci xasidaam yi wala di ko wax loolu saa bu ñu waxee ma ni leen la ca nekk ci secret ak la ca nekk ci xam-xam ak la ca nekk ci wàllu àddina ay taxawaay loolu it boo ko dee seet ñun ñoo tëj liggéey bi kon nan la ñu war a fexe ba ubbi liggéey bi te ubbiti liggéey bi nag mënut weesu lu jàppaloo gi jàppaloo gi doon benn bëggante te dindi nag yenn yi te xam ne sëñ tubaa rek fi nekk te it nag mbir mi barab bu ci ne ak fenn fu ci nekk sëñ tubaa def na fa la mu fa war a def ba noppi kon kon kenn mun ta gaañ sa moroom kenn mun ta fexe ba fëkk sa këllu moroom te këll boo ci gis sëñ tubaa ko duy kon loola nañ ca rafet rek waa nañ ca nañ ca rafet rek waaw loolu moom mooy doon ndénkaan loo xam ne daal walla lu may soññ sama bopp di ko soññ taalibe su ñu doon benn ci ñu dindi yenn yi daal waa ñu dindi yenn yi. jërëjëf ñu ngi santaat sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax dañu fa dañu dañu seetlu ni sëriñ bi moom daanaka ci discours am yu bëri jàmm da ci da ci da ciy dikk bu baax a baax a baax a baax mu ci insisté bu baax xanaa mu incha allah muy li ñu ci ay leeral rek ak sabab bi. waa <laughs> jàmm ak sëriñ Touba. damaa déggatu tubaab waaye damay faral di wax naa leen jàmm moom paix ak sëriñ Touba vont pair benn lanu sëriñ bi moo lëkkaloo ak jàmm ba moom bi mu jógee moom sëriñ bi eh, la mu njëkk a am ci suuf muy Daaru Salaam gii boo ko seetee moom la ko tuddee te Daaru Salaam sanc ba dinaa koy faral di wax Cheikh Ibra Fall moo njëkk a gis sancub Daaru Salaam ak li li nga xam ne ñaare sax dinaa ci dégg wax waaye Cheikh Ibra mooy jaar di dem di dem di taxan fa muy taxanee di ñëw di ñëw ci daara ji nga xam ne li ma leen wax sànq dongab sëriñ Touba moom ëpp na sax xutbub jamono moom bi mu ñëwee moo ñëw ci maam na mu ñëw ne ko ah sëriñ bi de sama Serigne te sañu ma koo digal ndax sama sang la waaye eh, tolof tolof yi di ko dal ndax booba Serigne bi ku ne xam ne nattu yi daa dal ci moom ci njabootam. lu feeñ du toog ak yenn yenn yeeg yenn yëngu yi Cheikh Ibra ne ko mel na ni daal suuf sii may romb fii bu doon ndaw ma ne ndaw si de kon nopp na sunu sëriñ bi nanu yàlla jéggal ci waxin waaye noonu la ko waxee histoire moom nan ko waxee rek nga koy wax ndax eh, noonu yi maam Thierno daal di àgg ca moom bi mu ñëwee àgg si ci sëriñ bi wax ko sëriñ bi ne loolu nekk ci weeru safar fukki fan ak juróom benn ci safar la Cheikh Ibrahima wax loolu bisu fukki fan ak juróom-ñaar ca safar ga ca la borom daaru muxti ñëw toog ak sëriñ bi ne ko sa taalibi bii di Ibrahima Fall de nee na daa am suuf soo xam ne daal nee na fii suuf sa baax na te suuf sa bëgg na la sëñ bi ne ko boo léegee nga seetali ma ko muy fukki fan yaak juróom-ñaar maam Thierno seeti ko maam na ñëwee ne ko ah mel seeti naa ko de waaye mel suuf sa de mel na ni mel na noonu moom day tuwaar fa kàlla sëriñ bi ci boppam ca fukki fan ya ak juróom-ñett muy bisub màggalub tubaab bi nuy màggal ci safar ci la sëñ bi njëkk a teg tànkam ci daaru salaam googu daaru salaam fi mu ne bu su ko màggaloon bisu bisu bisu bisu safar màggalam la ndax ca la si sëñ Tuubaa njëkk a teg tànk bi sëriñ bi ñëwee teg fa tànk it daal di ñëw xool mook Seex Ibra fa nekk ak maam Thierno ak sëriñ bi ñoom ñii ñoo fa nekk ñoo fa ñoo fa bokk nekk ba ñëwee sëriñ bi daal di xool ba yeggale daal ne ah moom day wax na dëgg suuf si mel na ni war a mel gërëm ba tàyyi daal ne léegi nag baax gi foofu baax nag dafa bëgg nag nu sampal ko fa ab néeg ñu daal di tàmbali samp fa néeg ba ba néeg ba di yegg nu war a aj néeg ba sëñ bee fa nekk ak maam Thierno ak Cheikh Ibra sëñ bi bëgg a laal Cheikh Ibra ne ko doo laal doo laal ci liggéey bi ah lu tax doo laal ci liggéey bi sëñ bi ne ko danaa ci laal ba yàgg sëriñ bi ne ko te maa dox nii boo xoolal leen nit Cheikh Ibra ne ko baal ma dem ma xool nit ba yàgg sëriñ bi dellusiwaat dikk ni leen yàlla sama borom day jox na ma wax na ma loo xam ne buñ ko bokkee def rek ma ma am ñaan gu jàng rek néeg bi dana woyof tooy am nañ ci lu sama borom néeg ba sëñ bi ne leen euh, néeg ñeenti koñ lay doon sëñ bi ne leen ñeent nag bu ko natt ñett di yëggati kenn ku ne ci ñun day taxaw ci ab day day taxaw ci digg ci digg lay taxaw kenn ku ne daal di taxaw ci digg bañ taxawee ci digg sëñ bi daal di am lu mu jàng bañ noppee rek ñu laal seeni loxo néeg bi mel ni xob woyof tooy néeg boobu yi tey mooy barab bii ci Daaru Salaam fii borom borom gaawaan dëkk euh, maam Cheikh Anta barabu maam Cheikh Anta bii mooy néeg sëñ tubaab bi njëkk fii ci Daaru Salaam sëñ bi jël dëkk ba tuddee ko Daaru Salaam Daaru Salaam googu yi nag sëñ bi ñaan na ko fu nekk a ah, ci yàlla mu defal ko ko mu dellu si senegal i jaaxal rujuuxi fu nekk suñ sëñ bi mi ngi ko fay bind waaye lam cay teg boo ko toppatalee ba ci biir salaaman lay doon wala shahada ñaar yooyu jàmm akuk texe mbooleem foo fekk rek loolu waaye day am li ñu tuddee ci grammaire it euh, euh, dammiir buy ñëw ñaare sëriñ bi saa su nekk rek boo seetee ak moomeelam ci lu mu bind Tuubaa doon wala Daaru Salaam jàmm nag sëriñ bi da ko bëggoon ba bi mu coow li mu koy am ak tubaab bi yëpp boobi loolu yi la daan sol lu weex rek foo ko gis yàlla sunu boromit it jàmm rek la bëgg ndax wallaahu yadoo ila daaru salaam yàlla yit amul benn fu muy dëkk fu dul yàlla yit ci jàmm rekk nag. àjjana it amul dara lu fa nit ñi di wax ilaa xiila salaaman salaaman nit du fa wax lu dul jàmm jàmm rekk kon jàmm dafay lu am solo lool ci ci ci ci ci ak dund. bi nga xamee ne Lat dafa génn àddina nga xam ne. ña nga xam ne ñooy soldaar yi ban Joor bañ demee ba ñenn ñi seet seen bopp ne ñoom daal léegi li ñuy def mooy dañuy ñëw daal jébbalu jaayante ak sëñ Touba bañ ñëwee ñu jébbalu jaayanti ak sëñ bi sëñ bi dañuy leen dem leen ba suba ca yoor yor ngeen ñëw ñooñu bañ demee ba ci suba ga ca yor-yor ban ñëwee sëñ bi danañ leen képp lépp li ngeen xam ne la leen Lat Joor joxoon ngeen daan ko xaree indi leen ko ma seet ñoom ñooñee kenn ku ca nekk nag daal indi. Eh, la nga xam ne nga yoroon moo xam ngànnaay la fital la mbëq doom gën daan yor ñenn ñi ay xeet la ñii ay jaasi la ñu ñëw di ko juug di ko juug di teg ban yeggale ba noppi sëñ bi wiccax boppam rek daal di yëkkati moom sëñ bi ci boppam képp koo xam ne la joor joxoon na la ngànnaay sëñ bi lam la jox ñii àlliwoo la leen jox ñi ay ëllëer la leen jox sëriñ bi ne leen réew lii koy defar waaye du ngànnaay mooy xam-xam akub liggéey loolu la sëñ tubaa jàngale kon njàngalem sëriñ tubaa damay faral di wax ne tubaab bi lii muy ñàkk ci àddina dëkk bii ñu nekk ak Amérique gee lii ñuy wër di ko jënd ci arme ak li ñuy wër di ko jaay ci armu te doo dégg benn financement boo xam ne fi mu ne ñu ngi koy def jëmale ko ci jàmm te jàmm fi mu ne jarte financé mayel sa bopp jàmm may ko nit ñi jàmm mooy financement bu njëkk investissement bi njëkk rek mooy yow mayel sa bopp jàmm may nit ñi jàmm buñ ko defee mooy investissement bi njëkk ci wàllu jàmm loolu la sëñ Tuubaa jàngale njàngale moomu nag sëñ tubaa jàngale ci wàllu jàmm moom la daan dox guddi moom la daan dox bëccëg ah bi nga xamee ne dem na ba lënkoog tubaab bi ñu koy ñaanal ak ñiy wàccee kaamil ak ñiy nàngam ñi koy yërëm wasalaamu ala man tabiha bil woodaa leen sëñ bi daan tontu ci ay leetaram ak di leen ko wax sëñ bi ne leen jàmm daal mi ngi ci képp koo xam ne dangaa topp ak njub képp koo xam ne nag gis nga ne amul jàmm mooy mu ngi juba jubadi waaye képp koo xam ne yaa ngi ci jub dangay am da ngay amuk jàmm waaye ku juba di moom ba ci wax rek waxtu woo xam ne wax nga wax joo xam ne dafa jaxase wala nettali nga nettali jàmbur wala féewale nga waxi jàmbur ba keroog wax ji di feeñ wala mu ñàkk feeñ yow amatoo jàmm kon nag jàmm nit daf koy jël di ko may boppam jàmm jooju nag ñaare léeg-léeg ma wax ni nit dafay fexe takk ko xarit jàmm da nga koy takk xarit da ngay fexe associé ak moom yow yaay fexe rek jàmm nga jël ko takk ko xarit lënkaloo ak moom associé ak moom loolu mooy doon jàmm ji nga xam ne mooy am solo ah, réew mi ñu nekkit muy Sénégal gi bërki démb bi ñu defee masaalik bële may leen loolu faaral la ci lislaam waaye source de paix la maanaam fu nit ñi mën di daje léegi ca Ndakaaru bu tàkkusaanee nga dem fa naan sa kafe jàng sa xasida ah, sa xol di naat te doomu aadama dafa soxla dafa soxla loolu kon naat naatu xol bu ko doomu aadama bëggee rek mooy na topp yoonu yàlla topp yoonu jàmm jàmm moo am solo àddina si jàmm moo ci am solo li ngay jaamu yàlla yëpp soxlawoo ko rek lu dul yàlla sunu borom bañ laa mbuugal ci bàmmeel ndax xam nañ ne mbuugal moom dootul jàmm waaye nag boo demee ba ca borom wolofal ba Cheikh Massamba Diarra Mbaye ma nga naan Serigne Touba bu ëllëgee ba nga jiitu ñu topp sa ginnaaw ñu jëm daaru salaam mu ne ko kerew ga tax nu gëm la tey kon jàmm ja ñuy soxla ëllëg ca daaru salaam ca àjjana ñee di ko soxla ca eh, eh, eh, biir janatul jannatul si ndax àjjana yi ay àjjana la ba muy juróom-ñett àjjana bu ci nekk ak planète nga koy nattali diggante suuf si ba ci kaw asamaan ndax planète bi ñuy wax Mars nga xam ne nit ñi mën a su faa yegg wala yeggagun fa ak yanga nga yeneen planètes yi nga xam ne des koy dégg te yeggagun ca te xamagu nun mel yàlla sunu borom nee na àjjana yi noonu la ñu rawantee moo tax ba muy woo julli di ne leen saabixoo ila maxfiratum min rabbikum ka jannati ardi wa samawati wal ardi uhiddat lil lazina amanu billahi wa rasuli zalika fadlullahi yuti man yasha wallahu zul fadlul azim yàlla nee na na ngeen daw njëkkante sama njëggal sama njëggal mooy lan nee na boo leen ko amee di ngeen am àjjana ya gën a nooy ya gën a neex wa yamxullaahi ma yasa wa yusabbitu umul kitab yàlla kat nee na man rek maa man nga jéggal mu jéggalu ak bàkkaar lu mu rëy rëy boo ma baaloo xamuloo yàlla nit ñi dañuy wax waaye yàlla soxorul de yàlla soxorul ci jaam ñi ndax kat bu soxoroon du ñu wax ne laxat jaakum rasulun min anfusikum ma antum arisun bil muminin nee na yéen julli di dama leen a yërëm te bëggal leen lu baax moo tax ma yónni leen yonent boo xam ne yonent boobu kat lépp lu baax muy yërmande ci moom laa ko wàccee te moom lu ma leen yërëm rek moom rasulullaay moo leen gën a yërëm moo leen gën a yërëm kon euh, jàmm euh, sun borom a ko njëkk dawutal bëggal ko nit ñi ndax diggante àjjana du ak morom ma àjjana ju ne ak morom nag am na ci àjjana joo xam ne mu nga ci digg ba sëñ tubaa nag inna lazina saaraxo bil xidmatin fa lahum diyaarul wasal janna nee na àjjana ja nga xam ne or bu verte la lay am or bu verte moo fa nekk moom lañ ko décoré mooy àjjana joo xam ne mu nga ci diggal àjjana wasal janna ci digg ba la ne sëñ tubaa nee na liggéey katam yi ak ñii ci daw pour liggéeyal ko nee na ëllëg yoom bu ñu génnee àddina foofooy seen barab ca àjjana àjjana jooji ñoom moom la aju Eh, jàmm day day doon lu am solo lool jàmm nag mun mënta am jàmm lu dul da koo wokk jàmm yaa koy ñoddi ci sa bopp yaa koy xiirtal ci sa bopp may ko sa bopp ba pare mais may ko nit ñi te dindi liñ tuddee coxorte ak kiñaan ndax yooyu amul solo yonent bi sax wax nañu ko nee na ab sang munul nekk ku iñaan mukk ku iñaan du doonub sang ndax kay yàllay teg teraanga ci sa loxo nga war koo séddali nit ñi ku laa biir ngay doon ku bari yërmande ngay doon boo ko doonee rek yàlla def la sang diwoo ma jur fii laa bokk ak askan wala laa bokk ak yooyu yëpp amul solo li am solo mooy ak cang te ak càng ci xol lay ne te mu ngir mu nekk ci xol nag jàmm rek moo fay mën a nekk kon àddina bi àddina lu rafet la boo xoolee ni mu mel àddina lu rafet la nga xool bindub doomu aadama bopp ca kaw tànk ca suuf nga xool loxo yi ni mu génnee loolu mënoo koo indi ci benn loo xam ne mbindeef la wala bàyyi ma la wala lu mu doon lu dul doomu aadama la yàlla defee loolu ba indi ci ay ay laaye yoo xam ne di wane ne doomu aadama kat laa teral ji kon ñun lan lañ war a def ci kaw suuf nag léegi bëgg fay nekk lu dul ñaar yoo xam ne mooy yées mooy bàkkaar ak ak bañante waaw benn bu ci nekk nag defarul dara kon nan may suñu bopp jàmm bu jàmm amee rek yërmande yàlla mën a am Serigne Touba nag li may faral di wax ci digganteem ak yonent bi ñaare nit ñi léeg-léeg nu xër a xër a ba mel ni man di daanu daanu jël ne sëñ Tuubaa gën na yonent bi waaye ku ko def ko nekk dangay tooñ sëriñ bi moom ndax moom dafa xam ne ahdimuhu ilaa duxoolil janna waaw daarul xara wal mun naa wal min na nee na man kat man xaadimu rasul mii ëllëg yowmal xiyaam bu nit ñi demee ba tabbi àjjana ba ñëpp nekk ci jàmm sëñ Tuubaa nee na keroog laa la gën a laxas laxasawaayat takkaat sama ndigg ba ca biir àjjan àjjana ja man damay des di liggéeyal Seydina Muhammad kon am na ci wax yoo xam ne nanu ko nanu koy rafetal buñ ko munta bàyyi sax nanu koy rafetal ndax sëriñ bi amul lu ëpp doole yonent bii kon yonent bi nañ ko jox ormaam te nag ñu nit sunu pas-pas yem ci moom rek ñu dooni taalibe waaye rasulullaay nanu bàyyi di jël sëriñ bi wala di jël nangam yooyu sëriñ bi sant ko kenn nun ay taalibi la nu nanu nekk ci taalibi gi nag mayente jàmm ndax jàmm jooju mooy dox fii dimbalante mbokkum taalibi ah, léeg-léeg ah léeg nga gis ñoo xam ne dañuy nekk ci dëkk yi mel ni man bu yàggee rek nga dem ba yàgg yor aada yi tubaab yi wala nga yor seen i jikko loolu yow indiwu la fi yow ab taalibe nga sa aada mooy aada aada ju baax aada yi lislaam aada yi murit loolu rek mooy li am solo kon nag loolu bërki démb maa ngi koy wax ñii ah sëñ Tuubaa moom bi ñëpp riiree daw di ko wuti moom moom la nekk ca moom la waaw la nekk ca moom la maa ngi recevoir beneen communauté boo xam ne ñooñu du nuy du nuy jullit waaye bi may wax ak ñoom seen kilifa daf maa wax ne ma yàlla duñ ko gis waaye fu mu nekk nu xam ko Sëriñ tubaa nag ba muy nekk nag nit ñi di fëx daw njaareem ku ne sa njariñal bopp nekk ci ku ne yaa xam noo koy fàggoo noo koy wutee waaye kenn gisul yàlla waaye xamoon na ne yàllaa ngi ci moom kon nag loola mooy doon yaatal bi mooy doon yàkkali bi mooy doon yoonu murit jëm ci kanam mooy doon jàppalante gi mooy doon taxawaay bi Tuubaa de tey lañ gën a liggéey boo xoolee taxawaay bii di am nga xool pas-pas bii di am ah loolu buñ gënee booloo rek dana gën a yaatu masaalikul naan mën na am fu ne ci kaw nag ñun bu nu dëgëree rek ndax sànq dama ko bàyyi ci sama biir yi wax bu nu dëgëree rek ba doon taxawaayu communauté bu foor bu am doole ci ci ci àll bi masaalikul jinaan ca France gi dafa war a nekk ca Italie dafa war a nekk di taxaw taxawaay yoo xam ne ay jumaa la ñuy taxaw ay jumaa la ñuy taxaw autorisation aw kayit képp la ndax ab dëkk boo demee ba yow nga juddoo ci beneenub dëkk juddoo ci àllub sagata bee wala nga juddoo ci digg njàmbur nga dem ba tey ji tubaab bi kayitu juddam ci dëkk bi yaa moom yéenay bokk benn passeport bi yéenay bokk couleur yi yéenay bokk nangam jaajju dëkk bi sax mooy mooy yéenay koy bokkule yéenay koy bokkule loolu lépp nag boo demee tey jii kon loolu ñun mën na noonu may ëllëg aw këyit dong la nag nu dem ba am jumaa fii am ko feneen am ko feneen waaye boobaa nag day fekk ne saytaane la ñuy dindi suñu biir ban wóolunu ndax kun wóolu dénk la kon nag loolu bokk na ci kàddu yu ma ci doon indi xam naa euh, waxtu wi mooy kii rek waaye daanu gën a yaatalaat yeneen waxtaan yi maa ngi baalu àq tey baalu àq ñépp di rafetlu seen liggéey bu tedd bii ngeen xam ne moom ngeen ñëwee ca timis ak ndëgëni ngeen àndante ko euh, di rafetlu lool it ni ma leen gisee fekk ci yéen it pas-pas ak i taalibe euh, fekk ci yéen it li ngeen di laaj yëpp it ma fekk ko ci yéen te loolu rek moo ma gën a sawarloo sax ne lii bu ma fi doon toog ba suba ci midi daanu fi toog di balu àq ñëpp te di wax ne wax ji eh, lanu bàyyi sax mu mu ëpp sax li nu indi ndax xat-xat biñ ko defee moom moo tax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di santaat sëñ bi bu baax a baax ci waxtaan wi ak ci kàddu soññe yi mu yi mu tëjee jotaay bi Ah, di sàkku ñaan bu baax a baax a baax te di leen jaajëfal.